Hmm. kana dedet kay ah du li ma foog kay xanaa déedéet loolu amut lolou man tane ya, sax ay bu deme non ay bu de lolou la fu koy man de arrière naa sama vidéo yi arrière arrière arrière jamono bi jamono biñ doon waxe ci est-ce man wax ci waxon na ci nabu man man man jiiñ nit du sama yëf man musuma jiiñ nabu dara waxoon naa rek jamono boobu mer nañ tension yi jóg nañ waxoon naa na justice def liggéeyam waaye jiñ doomu jàmbur moom <laughs> man ko ma xam-xam ne lu sama yëf nekkuma fi nag ñu koy géngante ma ak yéen waaye na leen leer ne yéen ñiy commentaire ak ñun ñuy wax ñun waxkat yi bu ñu génnaatee defaraat suñuy wax yéen commentaire kat yi war ngeen a génnaat defar seeni commentaire ndax ñun lépp lu ñu tulli ngeen ba lax ko ñun dañuy wax yéen gi kon bu ñu amee gàcce benn yéen am ngeen fukk dina am ñu génnaat nag <laughs> génnaat dina mu ne Nous ñuy def ba de vidéo baltazar yi avons ñuy def ba vidéo c'est simple fay fay amul fay sama Instagram ngay on jox la lien vidéo bu 5 euros fay nous def comme gis naa vu, ni ngeen vous avez commercialiser vidéo vous avez 5 euros 400 vidéo xam ngeen vidéo Vous 5 euros fay vous ma jaay Ma oubisit nan ki dougel ti videyo, yep komersyalize ko, paske toubab li la idef. Toubab li pou loun kade ne aske yon wi jongen ko bopore, mwem de chi ligye. Fay! Yen nit ki yon gen top kwa top kwa, ban yon kwa yon wadi yon bo pe rizon. Bounen yon bo goun ko, sak! Yon gen top pati, yon mwou dougo pe rizon, yon gen de ban ek wache ay videyo, mdoy nan kaye lege nan. Ba lege yon yon top ki videyo, lege nan de ma oubisit, fasyen e djeli masen de siri ou yon ek, di nyon di ti dougel.